gone gu ci bëgg am li nga bëgg fexeel ba yàlla na ngay li bari di jëm ci yow rek yàlla na ngay yu bari nag li koy waral mooy yar ak teggin rek koo gis warmaal koo gis suturaal ko rawatina mag ñi mm-hmm. ñu di la ñaanal mooy yàlla na nga yooyu mu wax rek ñu di la ñaanal léegi gisoo ñu dañuy gis ñuy toog ci genn garab di fa naan ataaya di fa waxtaan ba yàgg am ci kenn koo xam ne kii day jékki-jékki rek romb gaañ yor oto bu baax ñu waaye kii barki dem rek noonu daan toog fii di naan ataay moom gaañ la fi ku ci ne ah moo ne kër gi boo gisoo xanaa gisoo kër gi eh, ñi ne ah xaalis yi réew sàcc nañ xaalis si réew mi liggéeyu ko de fekk yàlla na ko ñu nangu rek la yàlla na ko nangoo gën a gaaw ci àdduna loo dëgg loo jublu rek mu mu mu nangu loolu laal rek mu nangu yàlla na nga ju nangu noonu lay de yàlla na nga ju nangu day nangu loolu li nga soxla jëm kon ku ci bëgg am am am am dara daal am mujj gu rafet am ay tuyaaba amal yar am war warmaal nit ñi ñu war te it boo warmaalee nit ñi ñu warmaal la nga am de daanaka loolu rek alal la. ak texe la ak texe la foo toll kenn du la wax dara doo jëlee fi jàmbur doo tooñ doo sàcc doo def yi nit ñi def léegi di di jël alal li jàmbur yu guddi di naxanteeg ak rey nit ñeeg yooyu yëpp doo duggoo ci mm-hmm. loolu rek texe la.